daanaka moom tey ku ñëw fi waat sa diggante ak sa borom waat bi du ca du caaxat ñëw ñu rek pour fi wax euh, waat mais dañu waat wax ne yow état bi day bilan yi ñu bind di def attestation jox la ko ñu ngi waat ne suñu axulaay lu baax la banque bi li ñu lay jox ñu ngi waat ne lu baax la waa statistique li leen di jox lu baax la waa banque centrale ainsi suite ba pare nag ñun suñu liggéey mooy gunge entreprise yi tey ku am idée wu projet mën nañu ci gunge ci idée bi nga taxawal ko gunge la ci entreprise bi am ay tableau de bord ba entreprise bi développé moo tax ñu ne aussi toog di sàggan ba yenn entreprise yi daanu te ñun ñu am ci responsabilité du yoon ndaxte entreprise amul lu ko gën a am solo ci réew kon nag ñu nekk ñoo xam ne waruñu ay nit ñoo xam ne dañuy nekk ci ay njaaxum ñun ñu leen di mbuub couvrir loolu moom président cour d'appel bi wax na